nag nag nag nag nag nag nag nag jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall messieurs et madame chers invités nos prières vont à sëriñ Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké khalife général des Mourides qu'Allah lui accorde une longue vie et une très bonne santé qu'ainsi soit-il pour sëriñ Cheikh Jëmb Fall khalife général des Baye Fall Cette journée est plus que mémorable. Elle célèbre la troisième édition de la journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba, qui se tient annuellement le huitième jour de la Korité sur ndigal di Khalif. Sur quoi repose l'organisation de cette journée? La journée mondiale Serigne Touba a été instituée avec le ndigal di Khalif pour que partout dans le monde tous les musulmans disent de façon harmonisée jërëjëfe sëriñ Touba pourquoi le mot jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba est l'expression la plus achevée pour témoigner reconnaissance à Cheikh Ahmad Bamba Khadimou Rassoul celui qui en 1895 a osé proclamer son refus, son refus d'obéir à toute autorité autre que celle d'Allah par ce refus historique Serigne Touba a sauvé tout l'islam En conséquence, si l'humanité rend grâce et hommage à Serigne Touba, ce n'est que justice rendue. Au moment où nous parlons, cette journée est fêtée à à Touba à la résidence Khadimoul Rassoul avec l'aval du Khalife général sous la supervision de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. À Kaolack avec l'implication de Serigne Babacar Mbacké Moukabaro, petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké. À Mbacké, où les talibés vont converger par une marche pacifique chez le calife des Baye Fall, Serigne Dieumb Fall. À Linguère, à Ziguinchor, à Gossas, à l'étranger, en France notamment, aux États-Unis, en Italie. Le comité de pilotage compte, grâce à l'aide d'Allah, développer cette journée partout au Sénégal et dans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 asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyoo bu baax képp koo xam ne teew na fi di tàmbalee nuyoo ci suñu sang si fi toog di sëriñ Modou Mamoun Mbacke Fadilou di ñaanal it képp koo xam ne teew nga fi rek suñu boroom defal ak tawfiix defal it ak nangu ci li nga xam ne moom lañ doon def di ñaanal. xalif général des mourides di cheikh Sidi El Mokhtar suñu borom yàggal ko fi loolu tam am wér di ñaanal suñu cheikh Jëmb Fall di ko képp koo xam ne kilifa nga ci yoon bi ak ndongo yëpp barkeb Serigne Touba jëre jëfe sëriñ Touba jëre jëfe sëriñ Touba jërë jëfe Serigne Touba jara am maam cheikh Ibrahima Fall kon dañuy tënk rek ci wolof ndax li ñu waajaloon sax xëy na gudd na waaye dañ koy tënk ndax daanaka naaj na ba noppi waaye li ñuy wax rek mooy solo bis bi bis bii nga xam ne mooy journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul da di bis boo xam ne ginnaaw biñ ci amee ndigalul xalif général muy Cheikh Sidi El Mokhtar ñaan saa borom dolli ko fi yàggal barkeb Serigne Touba. pour ko yëngu ci am po ba dugg ci bàmmeel boo gis Serigne Touba na nga xam ne teg sa bopp sëñ bi li leer na. bu nu so bu nu robandoo woon téeméeri murit ñëpp sëñ bi nangu leen waaye day fekk nga nekk ci lu baax waaye nekk fii fooy fooy sa bopp yàq sa bopp di tudd sëñ bi foo ko wut tudd di caaxaane sëriñ bi yaakaar ne boo demee àlaxira sëñ bi da lay dimbali sëñ bi am na ñoo xamante ni bii du nu seen lu tax sëriñ tubaa kon bu nuy wax jëri jëfi sëriñ tubaa nanu fexe bay jaamu yàlla nanu fexe bay nangoo liggéey nanu fexe ba jub nanu fexe ba maandu nanu fexe ba kunu seen muy dem du nu yàpp waaye koo xamante ni bii kunu seen ngay dem mu yàpp la xeeb la ci saw doxin xeebli sa jëmm xeej say wax xeebli sa lépp nga naan jërëjëf Serigne Touba yaa ngi tudd Serigne Touba kon li ma dégg ci jërëjëf Serigne Touba daal mooy kuy wax jërëjëfi Serigne Touba ku la gis dalaa war a ñee ku la gis dalaa war a xemmem ku la gis dalaa war a bëgg ku la gis daa bëgg war a wax ni kee day mosin ni moom lay mel nii daal moom man ci laa dégg jërëjëf Serigne Touba maa ngi wàcc sama kaddu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wa baax yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ma jiital ci taalibe yi sëñ Maamun Mbàkke ibn Cheikh Mouhamadou Fadal Mbàkke mbokki taalibe yi mbokki jullit yi gannaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa ñi ngi julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di sant xaadimu rasuul jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba sëriñ Touba ba ñu ko santee ba pare ñu ngi sant suñu buntu ci xaadi xaadimu rasuul di soxna Maam Asta Baara Mbàkke yal yàlla yokk leeram yokk ay tuyaabaam fa mu tëdd yokk leeram bu baax a baax a baax yóbbu ko fa gën a kawe ca àjjana ci gën a kawe ca wetu maamam ak waajuram mu góor wa gannaaw loolu maa ngi jégglu sama xol bi jot tooy ndax ku ne xam na ni kullu nafsin zaa'iqatil mawt li ma ko waroon a jëkk a tàmbalee sax mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax ci yàlla la jóge fa la ñuy delluwaat yàlla na yéex yàlla na fi yàlla bàyyi ñu liggéeyal xaadimu rasuul téeméeri at kon su sama rangoñ sottikoo koo rek yéen ñii ñoo yéen a tax seen jëmm ñii ñoo tax ndax ku yore sa waajur ànd ak moom ba ñu jébbal ko xaadimal Moustapha defe naa dara yéematu la waaye yéen ñi mu bëggoon ci xolam ñun ñuy doomi deretam yéen ngeen di ay doomi xolam yéen dama leen a gis rek sama àddina yépp tukki loolu rek la waaye du dara maa ngi koy jéggalu ndax ku ne xam na ni kenn toggu fi yàlla na yéex rek lañuy wax ñu ngi ziyaare itam sëriñ bi sëñ Babacar Dieng bërki démb rek lañ ko yëg na kon dinañ fa teew taxaw fa li ko tàmbalee ci taawu soxna si nag ba ki ci gën a tuuti di maam ami ñoom laa fi teewal di wax ci seen tur ñu ma xamal ma ni ma ñi ngi fasanteeg yéen kóllëre ndax sëñ maamun digganteem ak soxna asta diggante sëñ Baara la woon rek ak sëñ Fàllu ku ne xam na ni ñoo bokk lépp ñoo bokk sëriñ Touba ñoo bokk soxna aw buso sëriñ bi nag li tax ma lim ko ni mooy premier taalibe bi may jëkka lim fii ñu toog sëñ bi ku amuk taalibe la waa waajuram wi jaaye woon njureem gi njureelam gi jënde ko ak taalibe jël njëg ga joxe ko àddiya sëñ bii di sëñ Maamun loolu la def loolu la doxale woon ak soxna asta magam ja ba tax yéen ñi ngeen ñëw jël seen lépp def ko seen ndeyu daara daanaka li nga xam ne moom lañ fi war a wax lépp wax nañ ko xanaa dafa tollook dama cee am ab cër dong yi samay doom lañu ñu jox ma cër bi waaye lu ñu war a wax lépp wax nañ ndax dégg naa fii ay kàddu yoo xam ne yooyu rek mooy li ma ta taalu bi ah sëñ Modou Mamoun nag day koo xam ne man sama sëriñ la ndax man sëñ Fallou laa tërbiyew mu ñaanal ma ma jaar moom fu bari ma bëgg leen a xamal ni leen ci man sama xam-xamu bu wóor bu ma xam ci sëñ Fallou képp koo xam ni kii gisoo woon sëñ Fallou wala tase woo woon ak jamonoom wala mosoo koo gis soo gisee sëñ bii gis nga sëñ Fallu billaahi mën naa ko war maanaam du du du wax lu neex du wax dara dama lu ma xam la kii sëñ Fallu ku ko musta gis mosoo toogook moom mosoo jëflanteeg moom dara jëflante la kii soo gisee li may mage mage ma nekk ci ronam dama koy xoole sëñ Fallu laa koy xoole nit a ngi koo xam ne kii dafa fees dell ku wilaaya ba noppi lem ko denc diit koo xam ne kii yàlla jox na ko xam-xam boo xam ne bi ku diisoo moom dina la gindi jox na ko it laa biir goo xam ne gii boo waxtaanee moom mu dimbali la li ñu war a soxla ci sëriñ lépp daje na ci moom du wax lu neex de dëgg la bu wér a wér sëñ Fallou ngi man day wax dëgg yàlla lu ma ko defal ak lu ma sonn ci moom xem naa ko bi ko sëñ Ablaye di teg sama loxo juróom-ñaari daayira fi nekk ñu def fi julli kaayub kori ak tabaski saxal fi laylatul xadar ak gàmmu ñi nga xam ne ci la ñu màggee ci parcelle ak li wër parcelle ak ndakaaru yëpp ñëpp ci sama kanam la ñu tàmbalee seenu taalibe bi kon ma ne nag léegi gone yi ma doon jàngal mokkal nañu ndax kàddu yi ma dégg fii ku mokkalul du ko wax. jaar bi ñaan yàgg si loolu dër di ñaanal kilifa gi fi nekk di Cheikh Modou Mamoun ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal suñu borom bàyyi ko mooy mu yàgg si loolu dër te ku ne xam ne ñun ñi nga xam dañoo féetee parcelle mooy mooy moo fay suñu Serigne Touba kon ñu ngi koy ñaanal mooy suñu borom bàyyi ko fi. ñu ngi fàttaliwaat ndigalu Cheikh Sidi Mokhtar ci nañ nangoo jaamu yàlla te fas yéenee liggéey euh, bañ tooñ te dimbalante suñu biir. ñu ngi fàttali ndigalam yi ndax nañ yaru te am yi teggin ñu ngi santaat sëñ tubaa bu baax ci ñetti fan yi ñu jàll ndax ku ne xam ne ni dibeer bi weesu digle na ñu tuub julli ñaari rakk tuub démb altine ni digle na ñu jàng alquran karim tey mu joxe ndigal ni nañ ñëpp nañ maase di wax jërëjëf sëñ Tuubaa kon ñu ñu ngi sant sëñ Tuubaa bu baax a baax fi ñu war rek ci turu daayira yi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi ñu wax ñu ñëpp nañ jàppaat ci organisation bi te ñu adhéré ci liggéey bi adhéré boo xam ne adhéré jëf lay doon ndax te ñun waa ne lu maraam lii si passé ni ñuy taxawee cant du ko wooteel suñu bopp rawatina li sëriñ bi joxe ndigal murid yëpp lu ci bokk kon war nañu am beneen taxawaay ci bis bi kon ñu ngi ciy woo murid yëpp ñu jàpp ci di daje def ay daje mensuel ngir jëmi sëriñ Tuubaa te bis bii ñu jàpp ni préparatif yi maanaam weeru rajab la war a doon ak weeru saxbaan balaa ñoo weer koor war naa fekk lépp loo xam ne daa jëm ci bis bi maanaam mu féete boor ci biir loolu tamit ba léegi ñoo ngi woo daara yi ne parcelle ak murid yi ndax jàpp nañ ni fa ñu déparé muy kër Cheikh Mourtada itinéraire bi la mu waroon demee mooy war nañu fexe ba mbooleem murid bu dëkk ci diggante kër Sëñ Mourtada ak fii ñu dugg këram xamal na ko bis bis bu ñu korité ba bis bi del si dañoo am bis boo xam ne jërëjëf Sëñ Tuubaa lañ lañ lañ lañu bëgg ñu fexe banderole yu bëri daara yi nga xam ne dañoo dëkk ci yoon bi tamit daara ju nekk war a taxaw ci bund kër ga xaar ñu ànd ak ñoom kon loolu ngir jëmi sëñ Tuubaa ñu ngi bàyyi xel bi ci topp ba léegi mu jëm ci wàllu sonorisation bi ku ne xam ne ni bis bi sonorisation bu mag la laaj ni ko suñu mbokk politiciens yi defee oto bu mag def ci sonorisation bu mag fu ñu roob naa jërëjëf sëñ Tuubaa kenn duñu laaj lan lañ xewle waaye bu ñuy laaj lu ñu xewle ku ne xam ne sonorisation bi defe naa mat kon loolu tamit ngir jëmi sëñ Tuubaa ñu bàyyi ci xel banderole yi ak pancarte dem dafa war a ba bu ñu nee ginnaaw suba bi maanaam bu jugee kër sëñ banderole yi fees ci mbedd mi ak ak pancarte yi ba ñëpp xam ne tey jii bisu jërëjëfe Serigne Touba la kon loolu ñu ci soñ ñëpp di wax murid yi sëriñ moom lépp loo xam ne da ko digle rek ak njariñ la sëriñ mënoon nañu wax nañ ko jàpp dimanche bu njëkk ci Korité wala samedi ngir murid yëpp jàppandi déedéet sëriñ moom lu mu jàpp rek looloo baax loolu moo gën ci ñun kon loolu nañ ci bàyyi xel bis bu ñëwtee bu jaree ñu tëj atelier yi tëj kër yi ñaan permission ñaan conseil ñëw di dajaloo di ko def ndax li ñu def sànq murid murid bu rëy mënu ko wala doomu aadama bu rëy mënu ko bàyyi sa yitte bàyyi lépp nekk ci mbedd mi nekk di di kilifa diñ sa daraja teg fële naan jërëjëf Serigne Touba loolu nañ nañ ci bàyyi xel bu baax a baax li ñuy soññewaat ba léegi ci gàttal rek di xamal ni ñun ay murid lañ lii mooy lii mooy lii mooy li nga xam ne moo ñuy may jàmm bëgg sëriñ bi jox suñu bopp te bañ a dugg ci yi nga xam ne moo xew léegi ñu naan kenn gënul kenn kenn gënul kenn kenn suuf kenn ñëpp yem te ku ne xam ne ñun de ñëpp yamuñu ndax fi ñu toog tey kii nekk suñu ginnaaw muy suñu moonu membre moo fi sëñ Tuubaa waxtu julli ba mu jotee ñun xamuñu waxtu julli jot bu sëñ bi ñëwee rek la ñuy julli bu ñu fi toogoon ba tàkkusaan sëñ bi bu sëñ bi ñëw bu sëñ bi ñëwee la ñuy julli kon ñun li nga xam ne ñun ay murid lañ li ñuy jig mooy joxe suñu bopp déglu ndigal tey jëfe ndigal kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax ñi ñuy ñaanal suñu mbokk palestine ñi ñuy ñaanal dañ leen ñaanal ndax ay julli leen comme ñun dañ leen war a ñaanal ñu yàgg fi loolu te wér waaye so so tey mën nañu wax nii li leen dal am na lu leen ko bokk na ci leen nga xañ mooy ñàkk am kilifa gu mel ni Serigne Touba ndax ay jullit lañ lu wér jox jox seen bopp yéen salaat waaye nag kilifa goo xam ne bu ñu leen def leen ñu def bu ne leen bàyyi leen ñu bàyyi loolu la leen defee am kon ñu ni ñu ngi ci barke kilifa gu ñu am muy Cheikh Sidi Mokhtar mu yàgg moom de mooy benn kilifa ci kaw suuf boo xam ne tey bu doon benn murit bu mu fanaan Dakar def naa benn murit du yéen du yéen Dakar kon loolu lañ ci bàyyi xel bu baax a baax li jëm ci thème bi nag ñu maa ngi jégul suñu Abdoulaye ma ma jukk si tuuti rek thème bi nañ ci bàyyi xel muy Serigne Touba ak fas au kii au colonisateur dafa am bis Cheikh Abdou laxaat wax mag ña fa nekkoon mu ne leen damaa bëgg wax leen lu tax keroog ba Serigne Touba gane àdduna ba ba ma gane àdduna man Cheikh Abdou Lahad Serigne Touba teg ma ci kaw lal ba woo mag ñi ne leen ñaan leen ko ndax am ci moom yaakaar keroog nee na mag ñi fusi xas de fusi lañ jàng ñaanal Cheikh Abdou Lahad Sëñ Abdou Lahad dafa wax ni Serigne Touba njaboot gi mu am laat laata mu dem ci géej gi ñoom sëñ Moon Moustapha ñoom sëñ Fàllu nee na da leen Moussa ñëw mu wax ay wax rëdd leen nee dafa wax ay wax bu noppi daal di sëñ bi rëdd ay def rëdd bu mag daal leen di wër bañ bañ dajaloo nee na ana lan leen wax sëñ ablaat nee na xaw ma ko ndax fekkewu ma ko waaye nee na ñun ñim am tamit ba mu jógee ci géej gi maak ñoom sëñ abdu xam naa si ñoom sëñ abdu xaar lay wax nee na woo nañu bañ ñëw mu wax ay wax rëdd wër ñu ma ne ana lan la ñu wax def nañu wax nañu yéen ñii de bañoon ngeen am moo tax tubaab bi jëlee ma fi yóbbu ma ci géej gi waaye sama borom nag bëgg ngeen am moo tax mu jëlee ma ci mu indiwaat ma biir Sénégal kon boo leen amee ngor doo leen soxloo leen lu jaamu yàlla ak topp yàlla ñoom sëñ Abdu Lahat foofu lañ nekkoon te ku ne xam ne ñun ñii tamit njabootu sëñ Tuubaa ginnaaw géej gi lañ bokk loolu nañ nañ bàyyi xel waaye li ci amaat mooy sëñ Tuubaa dafa wax ñi ci tukkeem bi ni ko ñibbisi gu wóoree bu ko dem bi wóoree woon nañu sant yàlla yow xoola ku ñuy jàpp ngir yóbbu ko ngir faagaal ko ko moom mu ne ñibbisi gi ni mu ko wóoree bu ko bu dem gi wóoree woon noonu dina gën a sant yàlla kon sëriñ bi xamoon ne moom leen rek ko jaaxaloo muy dem gi waaye ñëw ñëw gi jaaxalu ko léegi la ci amaat ba léegi ñu ne tubaab bi nee ñoom kañ lañ daan xam ni bato bi wala train bi mu ngi ñëw ndax jamono yooyu téléphone amul dañuy estimer rek ni ah bato bi kat jóge na talaata Dakar kon xanaa fii euh, euh, au plus tard samedi dina ñëw Ndar waaye ñoom bu Sëriñ Tuubaa musaana tàmbalee takk bagage yi ba jàpp ba julli ñaar rakk ya ñeenti rakk ya sëlmal ci la bato bi wala train bi taxaw seen kanam nga xam ne ñoom bu ñoo ngi yóbbu sëriñ bi waaye sëriñ bi moo leen wax maanaam bato gi ñëw wala bato du ñëw train ñëw wala train du ñëw benn ñoom ñoo ko wax bañ a ñu wax ni ñoom suñu musaana bëgg a jéggi dayoo ci ci ci ci ci nattu yi ñu teg Serigne Touba bëgg a def ay ñàkk teggin nee saa su ne dan daan am ay jëmm yoo xam day dox seen diggante Serigne bi danañ loolu duñ ay nit xamuñu lu mu doon kon ñoom la ñetteel ba mooy koo xam ne da ngaa yóbboon ngi faat ko maanaam ñu jégal ma boo amoon sa sa loo xam ne da ngaa bëgg a sànni tey wala nga bëgg koo rey yóbbu ko ba ci àll ba mënoo koo rey da nga ko fay bàyyi waaye doo ko indiwaat waaye ñoom bi def ko luñ ko war a def yëpp indi ba indiwaat ko bu ñu ko indiwaatee sëriñ bi lan lan la wax mu ne man jégal naa leen te dafa am sànq lu doy waar dafa am benn bu jaay ay picc dafay wax gaa yi jëndee picc yëpp ba bàyyi ko daan jënd picc yëpp bàyyi ko ndax ku naan jërëjëf sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ba muy ñaan irham jami xal waraa la wax dafa ñaanal min jëf yëpp gaa mu ànd ak ñun moo ngi ne taxaw naan jërëjëf sëriñ Tuubaa sama picc jeex na tey ci barke sëriñ Tuubaa mujj gi mu naan man suur naa añ tey ci barke sëriñ Tuubaa te ku ko dégg xam ne ni baat bi muy mën naa njort ni du am murit ndax kàllaami kàllaamay pulaar la pulaari murit yi nañ ma jéggal waaye li am solo daal mooy jërëjëf Sëriñ Tuubaa moom moom mi nga xam ne jaay ak picc yi ñu bàyyi ñu def ñoo xam ne jërëjëf Sëriñ Tuubaa ñoom borom Tuubaa bismillahi rahmaani rahim barkeb Sëriñ Tuubaa yi ñoo ngi leen di seere di leen jéggalu bu baax ci kàddu yi ñuy yëkkati ci kanamu kii nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba jëwrin wax na léegi wax ju am solo yoo xam ne war nañ koo bàyyi xel ndax bu fekkoo def na li ñu war a def ñi nga xam ne ñoo nekk États-Unis tam sori lool di def le vingt bu nekk ci soulier ñuy dox dox boo xam ne ñu jóge ci ay état di fekk si dox boobu ngir sëriñ Touba war nañoo jaral ñun ñu nekk ci Parcelles Assainies 1 ba 26 ak Grand Médine nag li ko wër ñu waajal bis bi nga xam ne bisub ndigal la ci takk ay banderole buñ ne ganaaw suba la ba ñëpp xam ne dañuy waajal jërëjëfa sëriñ Touba ni ko suñ jëwriñ waxee léegi parcelle nag day paar bu sell ñu bàyyi xel ne ñeenti doomi sëriñ Touba ñëw nañ wéttali ko Parcelles Assainies soxna meen gaabu ak ki nga xam ne mooy soxna moomi waaye soxna may ca sowu ba sëriñ Mourtala ca penku ba xanaa lii war naa tax ñu war a góor góorgóorlu te xam ne école yi nekk Parcelles Assainies yëpp internat yi moo leen ëpp tey te internat yi alxuraan lañ ci jàngale di jàngale xam-xam di jàngale sëriñ Touba kon parcelle tuddul parcelle waaye par bu sell la tudd waaye li tax nga xam ne Serigne Touba mooy Modou Mbakke te Modou sañ naa taxaw ne maaman te maaman ak maamun ñoo bokk nuñ koy binde moo tax bi sëriñ Touba ma ne mooy nil ñu kii nga xamante ni mooy sëtam bii tey mu teeru ñu fii ci kër Cheikh Abdoul Fadilu mooy Serigne Modou Maamun kon kay Serigne sifatu saadixal muridu bi ixtisaar arbaatu nasamtuha xaw fa tiraar loolaay la bamba wax ca gaa yey saadix déglul nga xam ne kii soree naag a asidqu fi mahabbatin sayxi abat nam soppe sayxi bamba bir na koy murit su mam tisaala amrihi aysul warab baatum ndigal fu mu ko dégg na bërit te dootu am ci soxla fenn fenn li fekk ndigal lay yegg loola bir na watarku ixtiyaara mutlaxan walaw du dox di gaare lii sëriñ moo tax mu raw bi baatirin ale fii maa xadraaw Seex Bamba fóot na ab xolom ba dootu bew li usni sannihi bila inkaari rafet na ay njortu badul jadaal kon kay boole ne mi rew murid saadix yàlla na naan ca kaw salaak firdawsi moo gépp ruugu jox sëriñ bi boppam ku ne amin déwén dëgg fi dellu si wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu baax a baax di julli ci yonent bi salallahu alayhi wa eh, sant sëriñ Tuubaa radiyallaahu di wax jërëjëf sëriñ Tuubaa waaw jërëjëf Serigne Touba waaw jërëjëf Cheikh Mamadou Fadal mi ma booleeg Serigne Touba dama xam damay wax salaamaaleykum damay wax xamu damay wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, ndax ni ko Serigne bi waxee rek kan liñ fi waroon wax lépp wax nañ ko dañuy tàmbalee wax ji rek ci niñ ko war a tàmbalee saa bu ne mu di ñaanal Cheikh Sidil Mokhtar xalif général de Mouride mu yàgg fi loolu te wér ñëpp nañu en masse wax Serigne Sidil Mokhtar Mbacke yàlla na fi yàgg loolu te wér. ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg liggéeyal Serigne Touba maamam ak Cheikh Amadou Lamine Bara baayam islam gépp mu àggale ko ci sago te nu fekke ko te ànd ko ak moom barkeb Serigne Touba noonu lañ koy ñaanalee njabootu Serigne Touba gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di ko ñaanal islam bépp di ko ñaanal Sénégal gépp ak réew yu ñuy wër ak réew yu jullit yépp ba ca Palestine ak Afghanistan ak fépp rek yàlla defal leen jàmm defal ñu ko euh, di fàttaliku ni ñu ko tàmbalee woon ci wax ci suba ba léegi rek ci ñaan ak fàttaliku suñu kilifa suñu xarit suñu sëriñ soxna maam Asta Mbakke Baara ñaan yàlla taasuñ ci barkeem yàlla yokk ay leeram moo ñam fa fekk ak ña ko fay fekk ñëpp ci barkeem baayam bu tedd ba ak barkeem maamam bi tedd ja noonu lañ ko ñaan la jëw dañu itam ni ngeen ko waxee sëriñ Babacar bi lool ñu ñaan yàlla xare ko àjjana yàlla yërëm ko waaye li ko maam Cheikh Ibrahima Fall moo ña ko fay fekk ak ñam fay fekk ñëpp ci barkeem sëriñ Touba di leen nuyu yéen ñëpp nag ci turu borom kër gi ñu dal mu di sëriñ Abo sànq laa ko woo ne ko ah ñun kat ñoo ngi sa kër te ku nekk kër da nga koy yëgal borom mu ne ma daal foofu fu ngeen yem rek yéen a fa yemale seen bopp seen kër ak kër sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa tax ngeen di yëngu waaw loolu ngeen def maa ci waroon a jiitu kon nag man ngeen fa nekkal kon nag maa ngi jot li eh, nuyoom leen jot li nuyoo njabootu sëriñ fallu gépp moo tax ma wax ne dama xam damay wax asalaamaaleykum damay wax wala damay wax aleykum salaam a rahmatullahi wa barakaatu ndax yëf yi dañoo génn fenn di leen nuyu ci turu mbokk te di fi teew yëpp soxna yaaram soxna soxna soxna Mariam dégg ngeen kàddoom sëriñ Xaade moom sëriñ Abdou Lahad sëriñ Kan sëriñ Mor Sall ak bokk ci teew yépp rek eh, di rafetlu bu baax a baax liggéey bi ndax daanaka li fi waroon a wax lépp lañ ko wax xanaa a gën a gudal jotaay bi rek moo tax ñuy nuyu góor ñi nuyu jigéen ñi nuyu tu tànk yeeg ñëpp rek ndax suñu xol seet dañu fi dafa rafet lool ñaan lii eh, dafa rëy lool Sénégal nag yu bari dañ ko dul xam ndax daanaka lu dul lu jëm ci xumb xumb rek soo ko defee borom positif benn benn yi ngay gis ñi ci des ko yëg daanaka daanaka Sénégal li ñuy wax LMD rek mooy na ñor fi mu ne LMD yi nga xam ne dañ ko fire rek au lieu mu nekk licence master doctorat dafa nekk lutte danse musique lutte musique dance rek bu ci jëmee day fees dell xumbu waaw LMD cosaan la moo doon licence master doctorat waaye gis ngeen ni ñu ko soppee léegi daanaka mooy lutte danse lutte musique danse su ci jëmul fii day fees dell waaye boo wootee lu positif jëm ci yàlla daanaka dañ cee sonn lool ñu door ko xam su génnee loola daanaka day jëm ci politique wala sport Sénégal loo fi woote ci politique mu fees dell loo woote ci sport mu fees dell waaye loo woote ci yàlla nag da nga cee sonn lool ñu door ko yëg ñu door ko xam surtout ñu koy door tàmbali bu ñu door tàmbali lu ne day diis waaye foog yaa e jàpp dër ci rek bu yàggee ñëpp yëg ko ndax murid gi li muy xumb xumb li muy am am doole ba muy door tàmbali benn murid tàmbale woon muy sëñ Tuubaa mooy murid numéro un bi moom képp ko woon donc kenn wétliwu ko waaw mooy liggéey liggéey ba dégg ñaan amutoon sax ku taxaw ci kanamam naan amin moom dong la woon kon nag ci benn murid boobu la tàmbalee ba gis ngeen fi àgg léegi islam ci boppam bi nga xam ne mooy cadre général bi ñu yëngatu ba muy tàmbali ci sallallahu alayhi wa sallam képp la tàmbalee di dañ ko ne iqra ko lañ ko solo moom képp la woon waaye ci dërëm ak positifam ak yitteem la dema dem ba daj àdduna ba ay milliards jullit nekk ci àdduna si léegi kon lii tam bu ko tàmbalee mu tuuti li ci ëpp di tuut tànk ak jigéen lu ma taam yaakaar la ndax islam coppam ba muy tàmbali noonu la tàmbalee woon sallallahu alayhi wa sallam ko njëkk gëm ko ko njëkk gëm mooy xayti ci soxnaam ak Ali ibn Abi Talib doomi bàyyam mu yar ko muy xale kon ba Quraysh doon ko rey naan ko anu minu ko anu anu minu ko wa tabaakal ardaloon ndax dañ lay topp te gars yi ñëw ñëw ñëw ñëw doole di la topp kon nag mbir muñ ci tàmbali mu tuuti rek dañ caa war a am yaakaar te def naa ne bu ngeen xoolee première édition ba wuute nag bii deuxième édition ko dañ a waajal ndax mooy xam na Missirah moo doon numéro 4 numéro 4 boo xam ne thème tem bii ngeen jël dafa rëy te riche ni ko sëñ kan waxee li mu wax ne xelam dal na ndax li mu leen doon jàngal mokkal ngeen ko ndax discours yi ngeen fi def ci gàttal rek dal na xel waaw ndax wane na modernité wane na xam-xam ndax lakk ngeen fi ñetti làkk yi ñeent sax làkk ngeen fi arab làkk fi anglais lakk fi français làkk fi wolof lépp du leer loo xam ne benn buñ ci développé woon rek na ndax wax ngeen histoire sëriñ bi wax lim jànkonteeg tubaab bi ak ni mu dellusee kon loolu Sénégal dañoo bëgg lu xumb bari na woote yu bari nga dégg ñu koy wax di ko médiatiser coow te li ngeen defee ko ëpp solo waaw am na solo loolu la jëruta feeb waxuma la marche bi ak dox bi waaye wax ji ak yar bi ngeen ko àndal rek sant yàlla leen ci war te Cheikh amoon Bamba face aux autorités coloniales day thème boo xam ne mën nañu cee wax lu ne ndax histoire coloniale bépp bu ngeen ko seetloo Serigne Touba képp la ci tuwaay mos a seppi nañu koy sànq yi juróom at mu dellu si dellu si d'abord waxuma la dellu si waaye mag mu baax teg ci ne mu dellu si sooxut amutub légit bàyyiwut la mu doon wax sëriñ Tuubaa képp ku mas a def ku mas a tabbi ci loxoy tubaab bi ñun ñu lay sànk booy dellu si ay reste la ñuy indi ay yax la ñuy for rek ne fii la nekkoon wala fi ñu ko fusillé mu jaar sëriñ Tuubaa képp mooy histoire coloniale française anglaise espagnole portugaise ñëpp moom képp lañ ci ma a sepp yóbbu mu dellu si waaw amutub légit sooxut bàyyiwut la mu doon wax ku baax ne na dañ ko sëñ bi dañ la nettali ne sama digg tubaab yi mi ngi mel na ñaar ñu nekkoon fi barab kenn ki wax kenn ki di ko noppiloo kenn ki di wax kenn ki di ko noppiloo bu yàgg ñu roofoo nee na ñu roofoo dugg ci lu mel ni am xur aw xur ne fa medd medd mooy nekk fa ab diir nee na ba ñu fa nekk mu yàgg ñu dellu si nee na ba ñuy ba ñuy dellu si ka féetewoon gannaaw moo féete kanam ka doon wax continuer wax la doon wax te ka ko doon noppiloo nopp noppilootu ko kon histoire dëgg ci colonialisme sëñ Tuubaa ko am kon nag jërëjëf sëñ Tuubaa bi mën na ko lool mat na ko te it sëñ Tuubaa coppam waxal na boppam maam Thierno radiyallahu anhu bi mu ñibbisee te mooy nisfu Shaabaan bi ñuy bi ñuy bi ñuy màggal Daarul Muxti te sëñ Fallu jox leen lu ndigal la ne ko Ibrahima de fii ñu demoon ba dellu si kenn ci yéen du fa jaar ëllëg rus ndax noon bi de lu ne jéem na ko waaye néew na oh lu ne jéem na ko te néew lu ne nag lépp ngi ci biir te xam ngeen ne tubaab bi lu ne jéem na ko damay wax ne waxuma la tubaab bi waaye état yu moderne yu ñu nekk rek nga xam dañoo xam ne état de droit la ay liberté ay avocat ay justice nangam nangam seen commissariat yi kuñ ci dugal ne animé public nga ngay nit ordinaire 15 minutes képp lu ñu bëgg ci danañ ko am mbaa ñu faagagal la moom am nañu pexe yoo xam ne yàlla nañu ci yàlla musal gannaaw bi nga xam ne ñunu neen la loolaa fa nekk boo xam laa rek ba mu ay tubaab nga xam ne booba li ëpp ci nit ñi bu ñuy taseeg tubaab ci mbedd dañuy daw dañuy daw bu ñuy taseeg tubaab ci dañuy daw làqut ndax ragal ko yow nag ñu atte la ne ennemi public nga dañ lay sànki juróom-ñetti at lu ne ñu jéem ko te loolu suñu tool waxee lu ne noonu na xam nga ne koo xam ne dañ ne ennemi France nga ñu lay sànki wax nga ko sànq ci discours bi yóbbu ko ci Gabon joué nañ ci climat bi joué nañ ci liquidation physique damay wax ne boo bi da ci am am na ci boo xam ne liquidation physique la nga xam jëmm ji lañ bëggoon a faagaagal boobu mooy Gabon ak li ci aju te Gabon kooku lu ne xew na fa fetal nañ ko suul nañ ko sànn nañ ko ci géej lu ne def nañ ko buñ ci xol yi dana yëngatu ndax tubaab moom seen xel ak nit ku normal mënta xalaat nit nga def ko pax mu jaar fa nga gas ko suul li man xalaw ni fil xufar wax suñu wax na koy jëre yi di ma ñuy marmaral di suul di metti di matt yu saaga nit rek bu doon nit kon du dellu si teg nañ ko oppoto fusée ay yooni yoon takkal nañ ko yu diis a dem ba ci diggée ñu ba ca ay yoon dugal nañ ko ci fuur loolu benn épreuve bu ci nekk rek bu doon nit du dellu si waaye nag du nit lim doon la doon waaw ximal xafidil maanii yugni anil madafii li kulli abdin xaashiin yabdu bu xeyral xormi waaw jërëjëf sëñ Tuubaa da cee da cee bokkul da cee bokkul kuñ koy tëkkaleel rek dañ lay nax waaw góor gu baax ku baax ne woon na sëriñ bi de ku koy tëkkalee keneen umpali nga sëriñ bi te yaa ngay toñ kooka ndax moom de wóor na ko ne sëriñ bi du moroomam ndax koo xam ne boo ma sant si ci mbedd da ngay dëpp nëbbut wala nga lafu waxuma laa ko tubaab coppati jéem lu leen mu dellu si kon kooku kuñ koy tëkkalee rek ñu ngi lay nax waaw kon yàlla ñu ko yàlla fayal te jaaraam jaaraama jéeg jërëjëf ji dafa am mag mu baax waxoon ne da koo tënk liggéeyu si bépp ci lenn booy ñaan te ñaan nga bëgg mu gën a gaaw neel barkeb sëriñ bi demoon te dellu te indi lu ñëpp xaj moom képp a demoon dellu si indi lu ñëpp xaj kon nag kooku jërëjëf jërëjëf ko jaaraam mat na ko kenn mësu ko ñaareel te yit wax na ne radiyallahu anhu donte ku ma xam muy ñett donte danañ ma xam mu ñett may xam mu suñu Tuubaa ma ko wax muy suñu borom mi bind ak murit bi ñu teg ci ak jaag ak jaat mooy cercueil wala tubaab bi mu ne suñu borom li mu xam ci man du ko wax ñëpp suñu Tuubaa kenn xamu ko dañ dañ koy sopp topp waaye du ko xam suñu borom li mu xam ci man du ko wax ñëpp tubaab bi li mu xam ci man ak réyam tax na du ko wax ndax réussite suñu Tuubaa yëpp échec gu bi la ndax moom képp ci histoire coloniale lañu mos a sempi yóbbu ne ñu ngi koy sànki mu dellu si. dellu si sooxut làggiwut amatul légit bàyyiwut la mu doon wax kenn ku ñu ma sa yóbbu rek doo ak doo bu la jëbale fi jëmale ak gore bi ca bato ba li ko suñu mel ne bokk di wax ne naan julli géej gi moo xam ne julli géej waaye piscine képp ku ñoom kay taxaw ci piscine nga nga faraane alaxira foofu la piscine foofu la géej kon liquidation physique bi mooy yóbbu Gabon ca àllu Gabon bi ca fel yaag matt yaag yay matteeg taw baag ngeen imaginer koo xam teg nañ ko ci suufu garab juróomi at ci maayum garab gabon tàngaay waag humidité baag yay matteeg jaan yaag ak lu teewoon sax téere mi di tooy loolu képp question la fi ne boo xam ne kenn du ko tontu fi ne ker garab mu nekk ci néeg dugul ci eh, dara tiimu ko fu mu jëfandikoo lu mu daan jëfandikoo ko daan déplacé nga xam ne jëlee naa sax li essai liquidation yi ñu xam ne ba léegi kenn tontu ko kër goo dem ci kër murid yu mag yi fi ne fekk fay gaal ñoo la ci gaal sëñ bi la woon te li ci ëpp ci géej gi la ko indaaleel ko daan déplacé xanaa doo jàpp sa prisonnier di ko di ko yenoon ay bagage am nga xam ne question rudimentaire boo xam ne tontuguñ ko ba léegi donc bañ jéemee foofu juróom-ñetti at nag mënuñ ca lenn ñu ko fi te nag léegi comme ni nga doon wax sànq ci Mauritanie nañ ko liquidation morale moo yóbbu ko gànnaar surafa yaa nga fa ak borom xam-xam ya bu demee dana complexé nekk kawri ci biir bayaadu yi ñu weex ñi mu complexé ñu seey far far dem pay ga ñëwee foofu far mm-hmm. wéralement foofu ñëwee foofa bala fa xew xew fa ñu bañ tiit ne kat fii fii kon fii doxut kon nañ ko delloo Sénégal ñu delloo ko Sénégal ne nañ ko yóbbu fa suuf su metti muy jolof def ko liquidation li ma tudd liquidation sociale mooy ber ko isolé ko benn benn di ko mën di ko gis yi par weer wala par bis am na ci ñoo xam ne ay buurba jolof lañu woon seen bañ mu murit ba léegi te foofu la tàmbalee ndax dañ naan dañ naan euh, surveiller ku fa dem ku ne ñu jàppale dóor la sumi la ci naaj bi am na ñu ko def xam nañ ña ko daan def ñu ngi fi waaye war moo tax na duñu leen tudd bu ma dégg ñu ne seet na sëñ Tuubaa dañ leen di woo woo mboolem mu ñëw xam nga gor dafa ragal ko toroxal ci biir nawleem nga suñu ko ci naaj bi dóor ko ne ku tax ngay dem ci Ahmadou Bamba parce que noonu tubaab bi la te yow boobu boobu mu nekk foofa juróomi at di ngeen ko xamee ca lu baree bari xew fa bokk na ci li ko li ko fa tubaab jëlee benn labbe moo fa ñëw xam nga di seetlu sëriñ bi mel na ab labe mu ñëw mel ne kuy sàmm xaram ci fekk sëñ bi gis sëñ bi ni muy tarbiya ña fa nekkoon ni ñuy jàng alquran ni ñuy binde alquran ni ñuy naafila ni ñuy binde kaamil ni ñuy jàng xaside ni ñuy wérd bi ñibbisee mu def rapport ci tubaab bi nee a ngi def erreur ndax yéen a ngi amoon problème ak Cheikh Ahmadou Bamba moom kenn la ngeen jël ko sepp yóbbu Gabon yéen koy yéen a ngi koy liquider juróom ñetti at mënu lu ne ko Gabon fetal ngeen ko ko du leen ko ci ngeen ko ci géej lu ne def ngeen ko mënu leen ngeen noppi ci ñëw yóbbu ko gànnaar dafa dana complexe ci kanam naar yi mu dem foofu yëf yi gën fa jógee naar yi fàq di jébbalu gàdd yi jébbalu muy mu gis fa yonante bi wér bi ñëw fa a doxe ngeen xam ne foofu baaxul ngeen jële fa indi ko ci yéen ci yéen fii da ngeen ko ber bu nekk ci àll bi mi ngi formé lu mat Ahmad Bamba yoo xam ne su noppi ñoo koy gën a garaaw parce que moom kenn ngeen am loolu affaire léegi nag ko temps mi ngi ci àll ñoom da ngeen am problème ak 40 Ahmad Bamba dañoo koy gën a garaaw parce que ñoom 40 am nañ te moom amatul Ahmad ba mu wéeru kon nag li di proposé mooy da ngeen koy yóbbu dëkku taax da ngeen koy yóbbu taax moom raw na moom leen ko dara mais dootu am temps former nit ñi bu ko defee nag foofa dana am saxaar am ay boutique am ay marché am urbanité bu ko defee yëf yi a gën a kii moo tax nga dégg sëriñ naan raamu masiri ila jurbel la daal la chasil la waayanoo sirrama fi sayri ma raamu bu ñu xamoon secret li ñu xew jurbel dëgg duñ ma fa yóbbu waaye xam nga jurbel la ña fa formé ak ba mu fa def nga xam ne ñeewuñu woon lenn société ba sallallahu alayhi wa sallam créé woon Madina ñeewuñu leen woon lenn ci lenn kon loolu kooku kooku kooku jërëjëfe moom war nañu ñëpp waaw moo tax sëñ Fallou Mbacké daan wax ne ndokki nun jaajafe moom waaw ndokki nun ñu yàlla baaxee ëpp ñu yeesuñu lami lami lami dugg ñu waaye jaajëfe moom nag mooy jërëjëfe sëñ Bamba ji ngeen wax ndax mu ne bu ñu ëppoon dañuy ñëw avant sëñ Tuubaa di feeñ bu ñu yeesoon dañu bàyyi ba sëñ bi feeñ ba noppi ñu doorat ñëw suñu suñu gémmiñ topp rek dañ koy dañ jamononteeg moom te duñ ko topp kon dañoo war sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax ñaan li yàgg lool ndax yi ngeen wax benn baat bu ci nekk rek mën nañ ko développé wax ci lu dul jeex ndax gabon gii lu ne xew na ci te Serigne tubaa bi mu duggee ci loxoy Touba bi 1895 ba 1927 génnu ci kon bu ñuy wax prisonnier politique bi gën a yàgg ci àdduna ne la kon incha allah ci kàddu yu rafet kàddu yu rafet yi ñu fi jël yépp rek dafa jël ca français bi anglais arabe wolof sëñ Babacar Imam sëñ sëñ sëñ Afiye Cobaan ñu xam ñu koy bàyyi xel lool ci rajo bi ak bokk yi fi jël kàddu soxna Mariam ñu tam ñu ngi fàttali ko léegi ni ko waxee rek di fàttali ko soxna sa bu baax di ñaan yàlla taas ci barkeem leen ndokkeel ci te ñaan te ñu gën koy waajal nag bu ñu ci àggatee jàmm te xam ne dana dem ba weesu fi incha allah mbirum sëñ Tuubaa moom tàmbali ga rek moo ca kii waaye boo tàmbalee te te way ca rek dana dem ba ëpp see loxo ndax du tànk naaw waaw te it bu tàmbalee te dëggu rek sëriñ bi ci jàppal boppam waaw ndax ay mbooloo ngi woote ñu fa yëngu-yëngu yu rëy te daanaka du dara te li ñu def sànq waxtu yu jot ñu bàyyi li ñu def julli dañ ko war di instituer jataay yëpp ndax asalaatu imaadu diin sëriñ Tuubaa mi nga xam ne julli jaraloon na ko sànni dara ci géej gi ku bokk ci moom ku ne li ko sëñ Babacar waxee war nga koy nuyu da ngay gis léeg-léeg li ñuy wax ay cérémonie xew nga dégg ñuy nodd ca suuf ba dégg ñuy julli ñuy wax lu kenn xamul damay wax ne cérémonie moom boo ko dégloo dégg weesuwut ñaar fañ koy defee dañaan suñu baay wala suñu maam fi gën sa jërëjëfi nguur gi daanaka weesu wut lii fañ koy defee ñooñu dañaan ñun suñu baay wala suñu maam fi gën jërëjëfi nguur gi defal lañu lii defal lañu laa weesu wut lii loolu koy jërul bañ julli mën ngaa julli bu noppi dellu ca loola te daanaka benn cérémonie weesu fi loolu su ko defee dañ ko war di intégré ci jëf yi ndax julli gi mooy mbir mi Sëriñ Fallu borom kër gi nga xam ne bokk na ci njëkk def cérémonie ci Sénégal heure bi ñu ko daan def day fekk benn waxtu julli du jot diggante dix heures doon ak ak ak nga xam kii julli suba julli nga ba noppi ku julli yor yor julli nga ba noppi tisbaar jotagul la ñuy wax lépp danañ koy wax te benn heure julli du jot waaye léegi dañuy bàyyi ba cinq heures cinq heures de bi ñu ñëw toog wala quatre heures bi ñu ñëw toog di wax lu kenn xamul den fa ñu toog fa ba tibis ba gee saa bàyyi fi gën saa maama fi gën saa bàyyi fi gën saa maama fi gën jërëjëfe ngóor gi loolu jërut bañ a julli dañoo war bu ñu ko dee wax ku ne sañ nga ko ku ne ku la neexee nga ne saa bàyyi fi gën saa maama fi gën yoonu kenn nekku ci ku ne sañ na ko waaye nag bu waxtu yàlla jotee da nga bàyyi la nga def joxe ko gannaaw dañuy tuddoo ji lislaam tuddoo ji tuddoo jullit dañuy bàyyi xel loolu xam ne ñu ko sëñ Babacar wax rek lu waaye du yooyu da koy nuru te it ñaan nag yàlla def jàmm ci réew mi yàlla wàcc fi ndoxum jàmm te ñu sellal xol yi te it euh, yàllaahu yaa muqallibal qulubi qallib qulubana anil uyubi xulub yi xol yi bu soree uyubi rek jàmm daal am ndax jàmm ndax jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi te it yitte yi tawati ak faju yitte yi mi ngi ci mu tawati rek kon ñaan yàlla def ndoxum jàmm def jàmm ci réew mi ñu sant presse beeg ñi fi ñëpp sant góor ñi sant jigéen ñi di ko def ci tur suñu ebo borom kër gi ak daar ji ak njabootu suñu tubaab gépp tey ñaan ñu fekke ko édition yu baree bari te buñu càggatee nañu ko waajal ko gën ko médiatiser gën ko leeral te itam euh, dana dem ba ëpp suñu loxo ndax xañ na danañ dem ba fii xat ci bu ko defee pourquoi pas sax ñu def ko ci stade Léopold Sédar Senghor bi ndax suñu tubaab yeewu na lu ëpp loolu te nii mu tasaaroo ci àdduna si noonu lay mujj day gën a gën a yokk rek waaye rek jamono ji léegi day jamono communication li xew yi lu bari bu ñu ko yëgul rek duñu ci mën a def taxaw nañu ci war a taxawee nañ koy gën a yaatal di ko teel a waajal nga xam ne bu ñu noppee rek commencé waajal bu déwén bi waaw bu ko defee jàpp ci sëñ affaire yéen ñëpp ak média yi ngeen jàpp ci xam ne seen bis la bis la war moom ku ko waxat ku ko waxut ñëpp la seen sëñ la war su ko defee nag loo ci yëngu rek da nga am ndam te la wax ne sëñ Tuubaa dafa yomba liggéeyal ndax boo koy liggéeyal da koy ko initié ñuy ñaan rek yàlla defal ci tawfeexi sëriñ bi defal ci ndimbalu sëriñ bi yàlla yëpp yàlla wéral cër yëpp ñu lool ci barkeb sëriñ Touba yàlla def sëriñ bi defal ñu taalibe gu ñu nangu li sëñ kan di wax ak nag moom ci ñun ak mbaaxam ne rek waaye ñun ay taalibe rek lañu ndax arab dañuy wax ne faqidu shay'in la yu'tihi ndax sëriñ Fallu moo ñu booleeg sëriñ Touba daf daf ne woon sëriñ Touba ñu ko soxna si waxe li ñuy tudde ak njureel sama digg ak yow jaay naa ko jënd ko taalibe soo ko nangoo bu nëpp njëg gi defaat naa ko addiya waaw moo taxoon ne man du ma doom ji bëgg cheikh ma du ma doom ji bëgg doon baayam du ma taalibe bëgg cheikh dama bëgg ne bu bi rek waaw fu ko tudde rek maa kon day ñaan ñun ñëpp rek yàlla defal ñu ñu ne ba xóosu sëriñ bi rek bii rek biir saaxi rek bàttin jërë ngeen jëf sant nañu bu baax yàlla nañu ko fekk at yu bari lool yàlla nañu ko fekk at yàlla wéral cër def jàmm ci réew mi yàggal fi Cheikh Seydi Mokhtar yàggal fi sëriñ Ebo ak njabootu sëriñ Touba gépp yàggal fi jullit yëpp di fi juboo ak déggoo di fi ndoxum jàmm ak nawet dal la li ci des nag léegi mooy la sëriñ Abdou Lahad waxoon rek nawetu xar baax a des waaye nawetu baax moom paas na nawet boo xam ne toog nañ ba wax séddi bëgg taxaw te léegi xar baax ci des waaye yàlla mën na ko kon nag bal xar baax googu sëñ ba tuddoon rek yàlla na yàlla defal nawet bu xarbaax ci réew mi def fi jàmm ak mucc ci barkeb Sëñ Tuubaa ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp te jéggalu ñëpp nag rek wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin waaw na ñëpp toog tamit may sëñ bu mu génn ba pare waaw ah, ñu door a génn incha allah de